waaleykum sama gars yi j'espère que vous allez bien 64 élèves la ñu nangu ci ñoom ay téléphone démb ca Kaolack ñoo ña dàq nañ leen waaw 90 000 taux de réussite la Abdourahmane Diouf di xaar taux de participation bi yegg na 98 pour cent bagub Sénégal RTS démb journal Winter bi mujjul jàll waxtu wañ ko prévoiroon ndax dafa am écran noir est-ce que sabotage la waaye ñoom Mamadou Moussa Niang gannaaw seen déclaration de presse Papa Alé Niang daal ne quel que soit lu mënti xew daan jël ay mesures te duñ ci dellu saala yaay ndeer a ngi xeeñ foofu ca RTS ay xeer yu mag la Thierno Alassane Sall ak Thierno Bocoum joor ci kaw Ousmane Sonko waaw Thierno bokkum nee na Sonko mérité wul nekk premier ministre ndax respecté wul sénégalais yi respecté wul institution yi Thierno Alassane Sall daal ne am na loo xam ne loolu bu ko defee coup d'état lay nurool waaw l'observateur ne tonnet ca langue da daal ne premier ministre boo xam ne mooy gën a briller sax président de la république lii bu yàggee dañuy foog ne premier ministre bi mooy président en euh, mooy définir politique état bi waaw euh, Fadilou Keita ne ca CDC dina càmbaraat doxalinu Mame Boye Diao bi mu yore CDC ak Cheikh Issa Sall ngir ñu xool mbir ma fu mu mujjee ONAS nee nañ dinañ indi 3000 kubéeru rogol ginnaaw bi ñu fattarñee kanaal yi nawet baa ngi ñëw boo sàgganut gars yi daan ko fawaat jaay ko feeraay Ousmane Sonko moomu dalal na ñam ñañu dëgër piiroon ca Colobane ne leen nag am na loo xam ne mën nañ koo maslaa am na loo xam ne mëne su ko toléré moom mooy lal nu mu la neexa ak fu mu la neexee loolu moom dañ ciy jël ay décision tolérance zéro Jean Baptiste Tine ministre de l' intérieur daal ne moom formulaire yi mu defoon maire yi taxuñ ko woon jóg gouverneur yeeg préfet yi lan moo tax Rufisque amul problème Bamba Fall ne tonnet ca làng ga daal ne man ma wax naa dëgër piir samay ambulant ma lànk ba tëdd ci naaj bi waaw waaw problème am na foofu waa ji jarbaati jabaram moo ko jiiñ viol ñu dem ca kanamu yoon mu ne kii galam la woon doon génn ñoom ñaar